dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw ba tey ci xibaar yi wax moo daal di indi wax ginnaaw génn gi nga xamante ne nag Serigne si Sy euh, jot na ko amal ci gàmmu ji yëkkati woon ay kàddu nag jëmale ko rek riposte bi nga xamante ne doon na explosive bu Abdourahmane Serigne Abdourahmane si daal dina yëkkati wax rek euh, ci lu jëm ci wàllu wooy Serigne Moustapha Sy nag euh, kii di Serigne Abdou Sy jot na ñaawlu bu baax baax nag kàddu yi nga xamante ne moom lañ jiital Moustarchidine daal di yëkkati di attaqué nag ci manière goo xamante ne jéggi na dayo ki nag moom jàpp na rek ne ci suuf daanaka loolu waru ko mën a justifier ci sorti bu mu afal bu ñu sukkandikoo ci RFM matin niki suba si la yëkkati yële kàddu nee na ci suba si juróomi fan ginnaaw nag déclaration bi nga xamante ne euh, grand frère bi jot na ko wax ci kàddu yu jéggi dayo jëm ci jamono bu ñuy màggal li di gàmmu ji foole te champ de course moom nag mu ngi koy ñaawlu nee na fan lay dem ak li mu wax ni war na ko jomb di wax doon na loo xamante ne Euh, doy na waar ndax amul ay problème psychologue mu doon ay kàddu yoo xamante moo duppee ci loolu ñu leen di xamal tey ji nag lañu amal rentrée des classes mais nag euh, tey ji jàngalekat rek la ñoo war a dem ci école yi ndongo yi nag ni ki alxames tolloog juróomi fan ci weeru octobre la ñuy dem waaye ba néggi ni bari na ci école yoo xamante ne nag duñu ubbi tey jàng tey ndaxte ndox ma bari na ca bërëb ya waaye tamit jafe-jafe enseignant ñu bëri nag ñi ngi ci kaso bi boo demee côté nag Ziguinchor foofee nag jàngalekat yu bëri dañuy ñaan affectation pour ñu génne foofu dem feneen ña nga xamante ne ñoom lañu fa indi ak la ñu soxla ci ab jàngalekat matul mu doon loo xamante ne nag ñu jiite yooyu école ñu ngi koy ñaawlu waaye ñu ngi sàkku tamit ci nguur gi mu bàyyi enseignant yi nga xamante ne dañ leen tëj nag ci kaso bi ndax école ubbi na ba noppi waaye nag ren ji jafe-jafe dina am ci wàllum njàng meek njàngale bi buñ ci toftale wax nag ci ñi di liggéey ci collectivité territoriale yi maanaam ñi liggéey ci mairie bi ñoom nag ba tey bankaat nañu seen i loxo tàbbali waat na 120 heures juróomi fan yoo xamante ne duñ ko liggéey ne ba tey ji nguurum Sénégal amul benn acte boo xam ne def na ko lu ñu bëgg moo ñu yokkal seeni seen i payoor gën dugal ci ay conditions yu mucc ayib donte ba tey nag ñu ngi koy làbbali te jamono ji ouverture yi jot na ñu bari ci ay élèves dañ ne di transféré te dañuy soxla ay papier waaye liggéeykat yooyu nee na nag du ñu yëkkati seen i moo doorlu tànk nguur gi defalu leen li nga xamante ne loolee la bëgg mu mel ni nag ñaxtu yu bari na ci Sénégal foo wax rek mm, loo wax rek weddi leneen la ca des mais nag ñaxtu yi bari nañ gu gën a gëstu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci maire yi ndaxte ñoom bu ñu liggéeyul askan wi dinañ am jafe-jafe ci wutum papier